sëriñ Jibril maa ngi lay sant di la ci dalal bi nga ma dalal di nuyu kilifa yu tedd yi ma fi fekk man tey dama dugal problème ndax ak boo xamee ne da nga ko bëgg a ay borom xam-xam yu toll nii dina jafe loolu ah. ah xanaa kon ñu ñu jéem góorgóorlu rek. mais tàmbali nuyu nag waa dëkk bu tedd bii. tàmbalee ci ci nga xamee ni mooy suñu sëriñ Tuubaa di ñaan yàlla mu bàyyi ko fii. may ko wér yéene mi rëy yi mu am moom sëñ Mountakha ci dëkk bu tedd bii ak ci yoon wii di yoonu murit suñu borom defal ko ci lu kawe njortam euh, laaj nga ma laaj boo xamee ne tamit je pense que ni jot na nag taalibe yëpp bis bu nekk ñu koy posé wu seen bopp. Mm-hmm. parce que àddina bi moo ni tëddee noonu xëy na démb euh, lu bare daan na xew ci benn gox. ba jeex ba raaf kenn du ko yëg. Mhm. waaye léegi lu xew ci sa biir kër ci instant bi nga koy defee la as doomu aadama na yow am xel am xalaat xam àddina dëkk sa tukki mhm. di ko seetaan di si jot instantanément. Mhm. suñuy doom yi léegi li ñuy jot ci information par jour démb wéy yu daan na dund ba faatu. te du jot lu toll noonu mm-hmm. donc nga xamee ni kon contexte yi mm-hmm. wëlbatiku na xaw ma ndax addis bi wér na am déet mm-hmm. naa ñu ne yonent bi daal nee na fa siruma daaxay sukkantu mais li wér ba wóor même bu dul addis sax jàngale nañu ni àddina bi ku fi dund ci jamono yi lépp loo xamee ni jumtukaay la ak taxawaay la pour nga mën a situer sa bopp ci fi nga dëkk situer sa bopp ci àddina nga xam cër yi ak responsabilité yi muy àndal mm-hmm. war na jaam bu nekk ndax dangay gis benn nit rek ñu xëy suba ci senegal gi euh, defal ka kaa comme li xale yi di wax mm-hmm. wutal ko lu tey na innema ñëpp jël ko ñu siy wax di si wax te boo demee ba ca fin ba dara du ci dëgg mm-hmm. te bis boobee nit ko koy yàq nañ ko àddinaam ak alaaxiram te euh, fa yow la yegg du man yeggu fa waaw kon bu ñu yoree lu toll na liggéeyu xadim rasul man mi nga xamante day wax ni man maay jëwriñu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ne dafa taxaw ni baa na di kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul si contexte su àddina goo xamee ni ñëpp gis nañu ni am na ay force yu jóg taxaw ak seen projet am ci fulla lool am ci xaalis am ci moyen am doole yenn saa yi ñu wéeru ci ay état te yéene yi gis-gis ya ñu am bu sottee diine dootul mandati mhm. te fu diine yàqoo mhm. yoonu murid du fa taxawee mhm. kon ñu jàpp ni il faut que ñu xam ni euh, dañoo nekk ci àddina goo xamee ni lii ñuy def si suñu biir dëkk bii di ko def suñu biir réew mi bu ñu defee rek lañuy jàpp ni àddina tegu si bët il faut que ñu xam ni euh, bët yi dootul bëtu taalibe surtout ñu surtout suñuy sëriñ ñoo war a njëkk xam ni bët yi leen di xool léegi ni jàq ci seen kanam dootul bëtu taalibe yi mhm. bëtu àddina la te ci biir àddina boobu sa taalibe ngi ci mhm. koo xamee ni yëgul ni sax yaa ngi dund mi ngi ci mhm. mais ak koo xamee ni tamit projet mi yëpp mooy gasal la kàmb bu xóot dugal la si ba pare suul la jàll dem kon chaque fois ak lépp lu ñuy jafati nañu jël univers écosystème bu mag boobu nga xamee ni foofu la ñu yàlla dugal pour ñu mën a mesurer impactu jëf yu ñuy def kàddu yu ñuy def ak taxawaay yu ñuy def hmm. sëriñ tubaa nafaan allahu bi barakat yi ñun ñëpp daf ñu jàngal jàngal gu wér te indi révolution ci benn taxawaay ndax boo demee ci xaaloolu irkan hmm. wala nga dem ci diggante keroog bi ñu ko woowee ci déju Maam Mor bi di ko yóbbu ci sëriñ si wala di ko yóbbu si buur am na lu mu wax yooyee mu wax nag mooy màndargaal Serigne Touba élément essentiel yi gën a wir yi nga xamee moom la ñuy xoolee Serigne bu mag bi mooy xam-xam ak ragal yàlla te ñaar yooyu dafa bëgg commencé doon denrée yi gën a wir doon puissance bi gën rëy ndax xam-xam si ngay dominer addina xam-xam ngay transformer ay théorème wala nga génn ci ay ay équation yu am maanaa wala nga indi ci ay analyse économique mu doppali ku nekk mathématique wala mu doon ay ay xam-xam jëm ci biologie wala mu doon xam-xam jëm ci nucléaire wala lu mu mën ci doon mhm. loolu wëlbati ko doon puissance kattan xuwa goo xamee ni moo lay permettre nga mën a am ci koom-koom dominer ci doomu adama waaw lii ñu am nii nga xamee ne kii mooy ki nga xamee ni mooy dundal njàngale rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mission bu toll noonu bu ñu ko méngaleeg iblis mi nga xamee ni dafa wax ni mooy suñu noon bu biir alxuraan àddu si muy suñu noon bu biir soo dajalee ñaari mbir yooyu yaakaar ngeen ni iblis ennemi bi gën a rëy def naa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngir projet bi mu porté ngir sautage bi muy doon jëm ci jaami donc par conséquent et par translation ennemi bi gën a rëy noonu bi gën a rëy mooy Serigne Touba njàngaleem ak njabootam. donc loolu aussi daf ñu war a dellu si ñu xam ni leneen lu dul teg suñu taxaw suñuy tànk ci li nga xamee ni moom la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jàngale moom la xaddi xaddim rasul indi bu ñu ko defulee ñu ngi nax suñu bopp et il important dafa am solo lool taalibe bi xam ci ban univers la ñu nekk sëriñ bi xam ci ban univers la ñu nekk ñu xam ni li wér ni ne laa taabudu seytaane innahu lakum aduwwun biin seytaane googu léegi jëmmi nit lay yor am jumtukaay am xalaat am tëralin te chaque élément si suñu dund daf ko intéressé mm-hmm. du ñu bàyyi ci suñu sol duñu du bàyyi ci ñuy yare suñu doom duñu ñu bàyyi ci choix yu ñuy def si suñu dund du ñu bàyyi sax ci sañ-sañ gi ñu am tànn Sëriñ Tuubaa doyloo ko fas yéene jëfee ndigalam mm-hmm. donc yooyu yii yëpp nag daf ñu war a doy sëkk ñu xam ne àddina gii fii lañuy amee saadatu daareni wa maqaamaatu daareni mm-hmm. ku dof rek yaay jàpp ni doo ko da koy dafay dafay comme ni xale yi di wax da ngay dox toog muy dox. Mhm. amul da ngay nekk nit ku organisé nit ku am fulla am fayda xam environnement yi xam contrainte yi xam noon yi nga am ba pare nag di moytu sa kéemtalaay kattan. Mhm. loolu buñ ko defulee ñu ngi tooñ suñu bopp te ñu ngi ubbil suñu bopp ay flanc yoo xamee ne bu ëllëgee nit mën na si jaar. jot te defe naa ni eh, Sëriñ Tuubaa dafa wax ni eh, li xayri intihaabil muntaqa kulla zi shaqa wa yanxu bihi naxwi sayidun wa zutuqa ñaar ñooñu dañu am responsabilité ndax diine responsabilité kese la il faut que ñu xam ni yoonu murit responsabilité la ndax man sama sëriñ di Cheikh lay Dieye c'est vrai que ni présenté ngeen ma comme ministre indi ay <laughs> ndëg mais yooyu yëpp bu dañ koy teg ci suuf mm-hmm. li ma indi tey jaral ma ma jógee Ndakaaru ak li muy guddi ak itte yi ma am si jamono jii. Mhm. ñëw tee fii Serigne Touba kese la. ndax man taalibe Serigne Touba laa. Mhm. te man maay jëwriñu xidmatul xadim bi nga xam ne moom la Cheikh Ablaye ji yor. Mhm. dama si damaa ñorta bi nga sëm li indaale woon. <laughs> waaw te loolu bëgg naa ku nekk mu xam que. mais je voudrais juste rek rappeler que ni. dañoo yor lu rëy. dañoo yor addina ak alaaxira bi gën a sell yoon bi gën a wér gën a dëgër loolu kenn duñu ci bàyyi mhm. bu ñu defee rek la ñuy jàpp ni dañ koy day yomb mhm. du yomb te fekk ñuy gën a dem ci kanam dootuñu dootuñu noon yi dëgg dëgg dëgg ñu ngi commencé feeñ mhm. parce que euh, Serigne révolutionnaire la théoricien la intellectuel la et c'est la c'est c'est mooy sommité bi ñu am ci wàllu spiritualité mm-hmm. et dans tous les domaines euh, loolu kenn du ñu ko bàyyi ñun nag ñoo war a tracer ñeme takk mm-hmm. suñu digg discipliné wu dox wane kii nga xamee ne moom la ñuy si mooy kan mm-hmm. wane pertinence u choix am wane efficacité bi mu am pour mën a indil li nga xamee ne moom la dig jaam yi nit ñi dinañu jóge ci géej gi ñëw ci moom mu leen di jëriñ te du leen lor c'est une très grosse responsabilité ngeen baal ma ci français nag <laughs>